ak géej a nattul. maanaam daal boo bëggee dégg-dégg. Hmm. maa bëggoon ñu dugg ci biir. man xam nga borom xaalis laa lu ma neex laay def mu duggal la ci biir summi la ba lu mel ni ginnaaw doon soqi la fii fat fii fat ñax la ba nga ne réglé mu may la cent Kounta Diop yaa ngi yàq sama xel mi de cent mille nag waaye sama nijaay Kounta dama koy laaj xaalis. du ci yëg dara dara du ko ci mbaa du ko yëg. du ci yëg dara. waaw kon baax na xaaral defal na avance laa lay avance avance bu doon laa lay kër gi kenn fi man doo nga fi ne. bu mu ko yëg de moom. ma ni yow. maa yow ak yàlla rek. trente mille a ngi noonu. loolu ñaata la vingt mille. waaw bu ñu duggee ci biir. lu des cinquante. wan ma ginnaaw ma xool ndaat saay ndaat saay saay ah yaa ngi arrière arrière arrière yow nag demal demal demal demal xanaa ma man wóop du ma ko laal ah waaye man man man lii lu mën a mën a dale yéele mu bañ aywa yàqu naa waaye man sama lii mi ngi mel ni ci mi ngi mel ni banaana bu fuus. dara waaye asalaamaaleykum daa jugugu daa jugugu waaleykum salaam cuun ku gëm yàlla ku la bëgg ngi nii ku baax a ngi nii cuun fi yàlla kese na ci moom